contre X kenn amul droit lever immunité parlementaire Ousmane sonk su dee X laa la wax ne. Uh-huh. kenn amul droit lever immunité parlementaire am. Uh-huh. xam nga li uh-huh. alors wax naa la démb immunité parlementaire li ko waral. mais xam naa ta wax naa la tam li tax ñuy laaj li ñuy lever immunité parlementaire. suñuy levée immunité parlementaire c'est que dañoo xalaat ni Sonko moo def lii uh-huh. ci ñaari fan fànn soit mu dem enquête préliminaire wala mu nekk flagrant délit li nga xam ne kenn du soxla levée immunité parlementaire am la uh-huh. mais su dee fii ñu nekk kenn waxagul dara euh, Sonko uh-huh. eh bien en ce moment là procureur mi ngi nii su bëggoon mooy laaj na ñu lépp immunité parlementaire du wax naa ko dem sa émission. wax nga naa le procureur mooy wax lever immunité parlementaire. Mhm. fii nag ci ni nga ma waxee tey lu bees ni contre X la. eh bien mhm. su dee contre X kenn warul lever immunité parlementaire Sonko man maa la ko wax. Mhm. il faut ñu tuumaal ko dara. procureur bind ni diw laa soxla ndax am naa dossier contre moom te bala maa wax ak moom am na kiiraayu euh, député hmm. wante nga ñëw yow waxoo dara jëm ci Sonko ndax dëgg ni hmm. x mooy mën naa nekk ma Samba mën naa nekk ma Demba donc lu ci yoonu Sonko x yoonu Sonko nekk ci kenn lëgëyul immunité parlementaire donc su dee kenn mënul lëgë immunité parlementaire par contre contre x kon lu muy wuti ay commission ad